فتبارك الله واي الحمد لله رب العالمين لب موي ادنا موي لي سيدنا علي وخون ثمانيه تجري على المرء دائما فلا بد منها ان يلاقي ثمانيه سرور وحزن واجتماع وفرقه ثم عسر ويسر وسقم عافية ادنا نون رك لا ليك ليك داي نيك ليك ليك مو نخاري ليك ليك مو واي واو ليك ليك مو توي ادنا بي نون لك gis ngeen alhamdulilah bis bii nga xamante ni ca lañ doon mayee soxna Yaasin Sàmb ñoo ngi koy ndokkeel bu baax di ko ñaanal yàlla euh, barkeel ab sëyam te jox ko ay càkkutéefam moo jëkkëram xaaj Boubacar Mbengue euh, euh, alhamdulilah donc ci ci waxtu woowu ñuy zikkaral soxna Yaasin di ko ndokkeel ci la message bi dikk ne soxna Ndey Jaañ accidenté te ñoom ñaar daanaka ñoo xaw a mu mel ni loolu lu daw yaram la lu doy waar la donc ñoo ngi ci mariage nekk ci mbégte nekk ci kontante waaye ci bi ñuy tëj ñaan gi soxna Ndey Jaañ ñi fekk na natt bi dal na ko kon nag alhamdulilah àdduna moo ngi noonu xat-xati àdduna moo ngi noonu waaye euh, li ñuy wax les aléas de la vie tamit moo ngi noonu léeg-léeg mu neex léeg-léeg mu naqari alhamdulilahi rabbil alamin foofu la ñuy tàmbalee tey waxtaan wi ci delloo njukkal bu baax soxna Yacine Samb ñaanal ko yàlla yàlla may ko sëy bu barkeel may ko njabot yu barkeel may ko xéewal may ko sutura may ko teranga su ko defee alhamdulilahi rabbil alamin comme ni ñu ko daan defee rek gis ki nekk ñoo ngi wéttali suñu mbokk suñu soppe Cerno Omar Kan Otijani fa tabarakallahu Euh, ñu jox ko mu ubbi euh, nuyoo waaye tamit ñaanal soxna Yaasin ñu mën a dem ci ñaareelu point bi ndax tey ñetti point la ñu war a waxtaane point bu njëkk bi mooy soxna Yaasin boobu ñu maye li ci topp mooy la xew ca Mali ñu fa rey ay jullit di fa rey ay pël ah, <coughs> ak xew-xewu tey bii mooy accident bu metti bi dal ci kaw safina bi Fapal ak bisimilah Thierno Waane salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu sëñ bi ñu ngi lay ziar ma leen si jàmm ñu ngi lay ziar lii tey salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax di la jaajëfal gën a ndokkeel ci waxtaan yu tedd yi ngay di def saa su nekk di ko baaxee julli ñëpp ñu ngi la ci ndokkeel di la ci di la ziar di ñaan yàlla yàlla dëgëral taxawaay bi yokk seetaan yokk xam-xam yi fay la fay la ci yiw defal la nga tiyanti sama sama ñëw rek di la wéttaliwaat soo ñu ne daan wéttali tey jotaay tedd ci ñu mbokk yi ak jigéen mag mu di seetaan ci te fi nekk fekk na dina baax ñëpp ñoo di jaar ci jaar nga ñaan di sàkku ci ñaan di am yàlla yàlla defal ñu jàmm àddina ak yàlla di ziar di nuyu suñu xalifa ñu sàkk laaj laaj Muniru ak mboolem waa maam alaaj amul Jógeen waa Jógeen ñoom di ziar di leen di sàkku ci ñaan ñaan yàlla yàlla dëgëral taxawaay yi yàlla na insal yéen yëpp ci di ñaan yàlla eh, mbokk mi génn àddina xale bu jigéen bi ajande ajande jaay di ñaan yàlla yàlla def mooy lu gën ci moom dem rek yaa ngay wax ay mbiram ñu yéemu ci xale yéemu ci xale xale bi fukki rek dem ci yàlla yombul benn ku naan ba ma màgg ma def lii benn ba ma màgg ma def lii waaye ku xëy rek yàlla jubali la ak nit ñu baax ñi ngay wër lu baax loolu dal na xel loolu sant sant yàlla sant yàlla te wax na ci moom yu bëri te li nga wax ci moom yëpp ci yu mbaax ay mbaax li nga wax ci moom yoo xamante ni yombul ci xale donc bu yàlla defee loolu ñu jëlee ko ci sa gémmiñ yow ñun dañ koy sant yàlla ñaan yàlla rek mu yàlla gane ko fi mu moom ak ñu bokkal benn waxtu ci dem ci dellu ci borom bi ak ñu mu fekk foofu yëpp yàlla yërëm leen def di dem ci ñoom enti sala salam day wax naan ku dee ci danga danga ci ñi shahada nga bokk lii tamit de ci la bokk ndax ku dellu ci boromam ci asida loolu ci la bokk donc di ñaan yàlla rek yàlla def ko muy lu gën ci moom su mu jóge su mu jóge ni jëm jëm euh, jaamu yàlla ci ndawam ak siit yàlla ko yàlla nangu yàlla jégal ko euh, moom noonu rek ñu dañuy dem tey da ngay xëy rek ñu ne la tey tudd la wala tey euh, tey ngénte la wala euh, euh, mariage la wala lii suba tamit nga xëy ñu ne la tàggale tàggale nit donc àdduna noonu rek la te dina xabaar ba tey dem moom waxtaan ngeen lu ci moom ci ci baax donc loolu sant sant yàlla te loolu rek la njaboot di ut intakon kanit kanan la uti kanan ki udli baax tamit surtout baax la ngay mën a dem ñu koy uti ci moom donc yi nga wax ci moom yépp di ñaan yàlla rek yow it yàlla dëgëral ci taxawal yéene bi nga am ci njaboot bu ndaw bi yàlla ko yàlla mottali yàlla jàppale la ci yàlla teel la ko boppam ndax yéene ci sama sama ba képp ku bokk ci sa rek yàlla def jullit xam kan mooy yàlla kan mooy yonent sallallahu mooy nit ñu baax ñi ci barke yonent sallallahu ñaan yàlla rek moom xale bii dem de moom bàyyil teel dina ku nekk ci biir ndeyam dina yóbbu ku juddu di raam dina yóbbu màgget donc ku nekk rek xam na ne bis bii dina mos a ñëw ñu fekk nag ak ñu lay fekkee yàlla ko xam di ñaan yàlla ak nu ñu fekkee nañ fekkee ci lu rafet yàlla mooy ñu ñu dernier kàddu bi laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah moom ñu xale ji dem xale jigéen ji dem tamit yàlla yërëm ko euh, dafa xoolee ko bëtu euh, bëtu yërmande ndax nit moom bu demee ba faatu soxlaatu lu dul bëtu yërmande yàlla suñu borom bi tabaaraka wa taala soxlawul lu dul dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom it yàlla na ko yàlla defal ak ñi ko jiit foofu yëpp seen liggéey maa ngi ñu di la ziar di la jaale mbokk mi dem ak mbokk waa Safin yëpp ak ay mbokkam ak borom këram ñëpp ñu ngi leen di jaale salaamaaleykum. salaam wa rahmatullah a ñëwaat sax ci soxna Ndeye dañ ne woon rek nañu ñaanal bu baax euh, soxna Yacine li ñu maye yal na yàlla barkeel sa yëpp ñaanal tamit. bàyyi xel bu baax nag euh, fa tabarakallahu lu xew ci lislaam bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu waxoon ne mm-hmm. euh, jullit yi mm-hmm. ci seen bëggante mm-hmm. ak seen yërma yërëmante ci seen biir mu ne dañuy mel ni yaram yaram du bëñ di metti yaram yëpp tey sot feebaraale da ngay gis ne damaa feebar. Mm-hmm. lan la sama boppay métti. Mm-hmm. te pourtant bopp bi rek ay métti. Mm-hmm. waaye yeneen cër yi tànk yi dañuy tayal. biir bi tayal gémmiñ gi lewet. dégg nga bët yi dootul nangoo xippi bu baax. nopp yi dootul nangoo dégg bu baax loxo yi daal di tayal. pourquoi parce que ñoom cër yëpp dañuy jàppale. bopp bi métti. noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale. te umma bi yëpp benn lañu. mooy ummatu. آه، آه، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ام بي بن لني واو داني واخ ني الاسلام عبد الله سن الله دي كوي سا بوروم دا نان يالا كوي سا يونن دا ناي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لي سا قبل نغ ناي كعبه الله المشرفه لي سا آه، تيري من القران الكريم واي سن الله دي كوي سا مبوك سن الله دي كوي سا مبوك wallaay doo waxee ni ñu sant kanna la wala ñu sant njëgën wala ñu sant faal wala ñu sant jóob wala ja mhm. njuum mhm. su la laajee kuy sa mbokk dangaa war a wax rek ne sama mbokk mooy képp koo xamante ni wax nga laa ilaha mhm. illa allah muhammadu rasulullah kon nag lépp lu takk ci umma bi lu dal ci umma bi rek ñun ñëpp war nañoo concerné euh, man dama euh, mënta concevoir yenn mbir wax naa ko keroog ci àjjuma ji ñu reyee lépp juróom fukki jullit ñu rey leen à bout portant mooy du ay snipers wala ay pexe déedéet tiim nit ki xool ko mu xool la nga dóor mu daanu nga xool keneen mu xool la nga xool ko nga dóor mu daanu ba pare nga bàyyi ray leen dóor leen ba nopi dé nañu du ñak wala jam nañ leen du leen bàyyi sax ñu dé nga tiimaat leen wat koku koku préméditation lañ koy wax ci walu droit koku amul amul dara dara luy mën a expliquer loolu. Hmm. lu ne da ngaa bëggoon a rey yaa ngi rey. Hmm. Hmm. <clears throat> loolu metti ñu bu baax touché nañu yéen ñëpp dégg ngeen intervention yi ñu ci def. te incha allah bu suba dinañ ci def beneen intervention en français. ngir mbokk yi mën ko bàyyi xel bu baax a baax a baax. waaye gis nga amagul ñeenti fan amagul juróomi fan amagul beneen semaine ajjuma bi ñu reyoon juróom fukki jullit yooyu matagul dikk delluseegul. mais ñu dem ca Mali fekk fa lu ëpp téeméeri jullit ak mhm. juróom benn fukk mhm. mooy cent soixante ñu rey leen ñoom ñëpp te li ci gën a garaaw mhm. mooy kenn xeexul ak ñoom rey leen dañ leen a fekk ñuy nelaw avant fajar xam nañ ni du quatre heures jotee rek ñëpp jóg commencé nodd commencé julli mais avant fajar la gaa yi jóg bi fekk leen fa ñuy nelawee mm. ñu taal leen mm. dañ leen a taal cent soixante jullit ñu taal leen ah léegi taal nañ leen mm. ba noppi yemuñ ca liir yi nag ñu tiim leen di dóor bar bal par par kenn xale yu góor yi ñu jël rendi ci Mali gi mais loolu tey ji waroon na fekk imam yëpp xutba ci ñëpp waxtaane ko l'islam bi yëpp yëg ne am na ku ñu gaañ ci ummatu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam parce que loolu mooy affaire bi wóor na leen wóoral yàlla ne billahi yonent bi fa mu tëdd mais xolam neexul ci ñuy jàpp ay jullit di leen rendi yonent bi du ci kontaan kon nag ñi fi teewal yonent bi di jël teranga yonent bi di jël addiyee yonent bi di jël xéewalu yonent bi di jël barkeb yonent bi di jël honneuru yonent bi mais ñooñu du ñu laalee kenn waxuma la sax nit waaye xar ci xaru waa kër yonent bi duñ ko duñ ko laalee mais jullit yi war nañoo jóg mm. ñëpp xam ni laal nañ leen mm. Amérique da yëngatu nañ mm. am na lu ñu def wax ko te li ci gën a li ci gën a mooy ñi ñu rey lenn rek moo tax ñu rey leen parce que pël lañu mais lolu lolu lolu lolu moy lan lolu moy lan parce que da nga xess parce que da nga nan mbimi mi parce que da nga yox jamtan yow dal peul nga dañ lay ray ta lolu amna Burkina Faso lolu amna Guinée lolu amna Mali gi ñu lay ray pourquoi parce que sa problème sen problème yep moy peul nga ñu jël ci 160 lak len rendi len xalé yi ñu buti len rey ñep ba nopi daw kenn xamul ñan la ñu naan kenn xamul ñan la loolu dafa mëna nek mm. am rew nga rey ca téméri nit ak mm. juroom benn fukk mm-hmm. loolu señ bi loolu loolu ab chef de quartier sax duñ ko defé ci quartier mu xam lan la mm. waxuma la nak nguur mm-hmm. donc loolu ñong koy nakarlu ci kanamu yalla di ko nakarlu ci kanamu julit di wax ci turu julit yëpp ne li naqaral nañu ba ci kanamu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mm-hmm. te ñoo ngi joytu yalla li nek ci xeetu yonent bi ci ay mm-hmm. coono ki naqar mm-hmm. metti na de metti na de te lii c'est pas la première fois mm-hmm. fi ne ni daanaka mënatoo toog benn weer te déggoo ay pël yu ñu rey ca Mali wala ca Burkina Faso wala ca Guinée te dañ leen rey parce que ay pël lañu te pël yi ñoom ñëpp yàlla def na sutura ci lislaam lan nekk waaw donc nag mbokk yi euh, am na loo xamante ni ëpp naa taal ab xeet wala aw askan book su jéggee juróomi téeméeri million ñooñu song leen wóorul ba Djibouti ba Tanzanie mm-hmm. soo demee doo waxee pël ñu tontu la mm-hmm. amul benn réew ci réewu Afrique yi fooy dem te amul pël langue bu yàlla barkeel la mm-hmm. làkk bu yàlla barkeel la waaw te pël yi man damay wax toujours gis nga ñu baax ñi ci feeñ ñëpp man xam naa Mm-hmm. dañ koy gëstu ci histoire jusqu'à waaye xanaa Cheikh Umarul Fuuti rek waroon naa tax ñu leen di ormal mm-hmm. Cheikh Umarul Fuuti radiallahu anhu mm-hmm. kese waroon naa tax ñu leen di ormal di leen jox cër di leen bàyyi xel waaye soo gisee ña Cheikh Umar seen maam ya yamu ñamu dajji woon seen xàmb ya ak seen pangol ya ak seen lañu jëloon def ko muy yàlla ba tey jii am na noonu bu ñu noonu lépp lu bokk ci askanu Cheikh Oumar Fouti loolu c'est très grave c'est très grave donc war nañ koo wax wax war nañ ko waxtaane war nañ ko ci gàmm yi ci daayire yi ci mbooloo yi ci xadaratul jumaa yi yooyu ëpp na di noppe parce que xeetu yonent bi la ñuy rey suñu mbokk jullit la ñuy rey loolu lu ñaaw la yal nañu yàlla boole dimbali yal nañu yàlla boole jéggal ñoom ñooñu noonu yal na yàlla nangu seen shahada boole leen ci martyr yi boole leen ci ñu dajeeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku waroon a jug fajar ñu tër la rendi la nga war a dem rek jullee ji fajar ca booto yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñee tamit dañoo dem julli ji jumaa ñu rey leen ñoom it gaawee nañ leen yóbbu leen aljanna ñu nit yàlla nañu yàlla boole jéggal su ko defee incha allah ma jox la na Omar mu barkeelu ci loolu su paree ñu soog a dem nag ki ki nga xamante ni mm. mooy soxna Ndey Jaañ mi mm. nga xamante ni mm. tey dafa ñàkk bakk ba gis ni ki tey démb macha allah démb yaani euh, tabaarakallahu waaye muy dem bu méttee métti ndax doomam ju ndaw yoo xamante ni amul ñaari at moo deyaaleeg moom mu deyaaleeg yeneen juróom yeneen ñeenti nit ci benn famille mooy famille jëkkëram waaw ay cheikh deenañ ca mm-hmm. jigéen deena ca rakku jëkkër moom daal tabaarkalla juróom benn nit daal ñoo ca deeyandoo mm-hmm. muy accident bu métti métti te dañ doon dem ziar yooyu yëpp dinañ ko indiwaat léegi dama koy junj rek mm-hmm. pour nit ñi xam ki ñuy delloo njukkal waaye ñi ñuy delloo njukkal mm-hmm. commencé nañ ca borom mariage bi pour wax leen ne leen àdduna noonu la naqari na waaye yàlla moo ngi def ne yeneen ci wet yi waaye wax leen tamit ne leen jullit yi ñoo ngi leen di rey waaye ñoo ñu rey benn xeet la bu ñuy wax pël ca la ñuy jàpp di rey te bi yoon dafa ëpp benn benn benn bu ñu rey rek ëpp na waaye nag cent soixante loolu c' est très grave heure bi waroon naa fekk Nations Unies wax ca nit ñi droit de l'homme yi wax ca imaam yi wax ca borom xam-xam yi wax ca ñu ñu yëngatu ba ñëpp xam ni li ñu def naqari na yàlla naqari na yonent di sallallahu alayhi wa sallam ndax neexul yàlla ndax neexul yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee nag suñu paree ñu soog a jublu nag ci soxna Ndeye Diagne mën ko delloo njukkal wax leen li tax ñu koy delloo njukkal ngir xale yi mën a jël ci moom exemple suñu paree ubbi téléphone yi képp ku bëgg jaale mën a dugg ñu sànnante kàddu incha allah Thierno ma tafa ba barke na ko jërëjëf sëñ Séga sëñ jaajëf jaajëf ci kàddu yi tedd yi nuyoo lislaam moom boo xoolee rek day jurmali histoire bu yéemu la fii la nit ñi di xamee l'islam ak lu dul l'islam ba pare jihaad ba Cheikh Omar def taal dëkk bu ñu rey xale bu ñu rey màgget bu ñu rey jigéen kon ñi ko def yàq di yàq tool waaw du ku bokk ci beneen diine ku beneen diine waaw du taal jàngu ko bett doo ko bett tamit day wan euh, l'islam yomut ak dara Cheikh Omar bi muy def preuve l'islam la woon kon da ngay man si li ma si jàngat mooy ñii noonu woon Cheikh Omar te bi Cheikh Omar fekk seen fàmb yeeg seen maam yi maam yooyu ba lot leen war nañ ci l'islam ñu bañ ñu rey leen ak ñooñu ak ñu dem ak euh, seen njaboot yooyu ma sama xel dama jàpp ne ñooñu rek ñooy dox ba tey di def ñaawteef euh, yu mel noonu ndax euh, seen xol yi di daan dox ci seen xolu maam yi ba tey moo dox ci ñoom te nga xam ne ñooñu bu Cheikh Omar dellu woon tey day jihaad ak ñoom ndax boo xoolee ñi koy def lépp ñi koy def yëpp boo xoolee ba ci lii bi da ngay xam ne lii zaaru fay fay fayu la ndax Cheikh Omar bi mu ñëw Mali daf leen fekkoon boobu kenn xalaatu dugg si Mali ndax seen seen yu ñaaw donc Cheikh Omar jihaad na fa ngir yàlla ba yàlla may fa ndam xam nañ ne euh, Cheikh Omar euh, pël donc ñoom bu ñu delloo di def ñaawteef yi te ñu ngi koy def ñëpp ay julli lañ kenn du si yëfee kon donc lii day wane ne euh, day jàngal ne doxalinu lislaam ak doxalin lu dul lislaam bokkul day ak lu dul

nga samp ko seen kër ba dëkkaale fa donc ñooñu tamit seen xel du dal ndax ñuy def nii nii tamit moom lañ leen ko def donc métti julli métti ci julli ñi ñëpp surtout tamit ci askanu pël donc ñi ñu rey foofu ñëpp boo xam ay pël ay man daal xaw ma mbir boobu lu tax daal xam nga xeex nga dëkk d'accord mais ay pël di séparé loolu lu lu lu nit ñi jar jar a xool lu jar a xoolaat la ndax kenn xamul fu mu jëm mun na xaw fee fee keneen xeetu kulaar mun na ko dégg naan day sotat ñu lay dégg di sot kenn xamul kon bu àdduna fa la jëm lii yëpp day wane ni ci axir zaman lañ nekk ndax loo musta woon dégg dañ ko dégg loo musta woon xalaat woo ngi woo ngi xew donc day wane ni yàlla nañ ko yàlla yamaleel fii rek affaire bi métti na métti na julli ñëpp ndax lu toll cent soixante personnes ñu rey leen ñoom ñëpp te loolu dara gën koo métti comme ni nga waxee keroog rek suñu mbokk yi ñu reyoon ci si juma di wax di neex amagul sax weer ñi tamit donc day wane ne islam bi ñoo ñu ñàkk donc xaw ma nag ñan ñoo ci war taxawaat xoolaat ndax nit ñi moom bu ñu nee mbir am na ñu ko war a taxaw ku nekk nag ak li ngay mettitloo ñu am seen kàddu war a wax am seen doole war a war a jëf ñu ko mënul tamit seen xol mooy ñun mënuñu si dara waaye na bu dee sax dara dërëtu pël di dërëtu jullit lislaam bi même boo dul même boo dul

donc di ñaan yàlla rek ñoom ñuy dem yàlla def ko seen may la ñu dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca ca Barga donc di ñaan yàlla rek yàlla yàlla ay li lépp bu yàggee kenn xamul fu mu jëm euh, li day mel ni guerre civile lay doon bu xamul lu muy jëm euh, te ñu si musal si بكجيلي ديت مثلتي نحو منين آه، نحو هو دايتال نحو نحو توي نحو دنيا دايتال نحو توي دونك موبايل تخلو بس كنا تكمل ورميتين خلات نخلي بوكل كنا خلي جلد بوك تبدأ نخل يوم خلات أقولي وصورة لي دونين خل ونقو ونقو خلات دونك خل وياك أكثر ويدفع بدون ذنب donc julli bi yàlla def ko may xel buy defaat donc tamit ñoom it loolu la leen yàlla nattoo li ñu waxtaanee que ku nekk rek ak ñu la yàlla di alake donc boo ñëw ëllëg moom foog rek am fu la yàlla di téye daal naan la lii yaa ko def te doo doo ci rek donc lu yëpp day wane sababu sababu alkani alkani la ñu la tamit day wane ne ndogal yàlla la donc di ñaan yàlla def ci ci la ci bi sama ñu fere yëpp ay euh, suñu la Cheikh Omar la ay lañ te boo xoolee seen histoire leen seen maam ànd nañ ak Cheikh Alhaji donc loolu yëpp euh, moom ko l'islam Mali tudd ci Cheikh loolu mënul ñàkk Cheikh Omar ku ku ku tudd rek nga xam dina tamit ci njabootam deretam lañ fa lañ fa lañ fa tuur njabootu code code Cheikh Omar alpulaar ñoo fa ñoo fa lii xamoon nañ nu mu mel ci njabootam moom Cheikh Omar euh, deretu pulaar nu mu ci ñoom ñëpp xam nañ ko ndax euh, yàlla dafa mos a natt deretu pulaar am benn euh, am lu leen war a dal Cheikh man ñaan ci yàlla na yàlla na ko yàlla delloo mu bañ a dal ci ñoom yàlla mu xam ne li lii wàcc la li mu ñaan yàlla yàlla na dal ci moom moom kese mu bàyyi askan pël yëpp mu pël yëpp mucc moom mu dal ko mu ne bépp dugg ci kële Bandiagara mu ngi ànd ak feebar bi donc kooku tey bu déggee mais am na ñu ñuy def nii ci Mali loolu dina ko. dina ko métti loolu comme ni ñu métti ñun métti nañ ñun waxantuma la moom ndax te moom it lu ko métti rek métti na eh, mag ñu baax ñi lu ko métti lu métti mag ñu baax ñi rek métti na yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu métti yonent bi sallallahu alayhi wasallam métti na yàlla donc di ñaan yàlla rek yàlla def eh, muy seen wàccee leen ko wàccee bu baax def eh, xoole leen bëti yërmande ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam jërëjëf Thierno Ba jazakumullahu xayran ci intervention bi tabaarakallaahu loolu moo war xeetu yonent bi moom lu ci taq rek mhm. ñun ñëpp war nañ ko bokk yëgandoo ko mhm. bu dee bànneex la ñu yëgandoo ko bu dee mhm. naqar la ñu bokk yëgandoo ko ngir xam ni ñun ñoo bokk lépp macha allah alhamdulilah loolu moo ñuy ubbil buntu ñu jublu ci euh, delloo njukkal bu ànd ak fàttaliku bu ànd ak ñaan bu ànd ak euh, ngërëm jëm ci soxna Ndeye Amy Ba ñu gën koo xam ci soxna Ndeye Diagne mm-hmm. mooy koo xamante ni amul fanweeri at mm-hmm. donc elle très jeune elle est jeune mm-hmm. moo ngi soog a am doom doomam amul ñaari at kon alhamdulilah ba mu duggee ci sëy kon yàggul ok ñaari mbir a bi euh, ci des mooy nday euh, comme ni mako jundé day jigen jo xamanteni euh li ñu wax ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne alifa nuska wala ibadata wal khalwata tiflan tiflan tiflan mbot ma yep moy tiflan te imaam Buseyri ci bopam wax na ne wa hakazan nujabaau de waaw neena rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi moromam yi di foog taxawalok lambar lambari moom moom commencé woon na bu yàgg di jaamu yàlla ci xolam di jaamu yàlla ci ay cëram di wéet di fàttaliku yàlla di tudd yàlla di xalam ci yàlla di xa xalaat ci yàlla te boobu nekkagul ab yonent te nee na imaamul Busiri nee na xale bu nar a tekki ëllëg dara noonu lay mel mooy day teel jublu ci borom bi tabaraka wa taala te loolu dinañ ci waxtaan léegi li ma bëgg wax foofu mooy euh, léeg-léeg da ngay gis ñu bari dañuy wax ne waaw naa bàyyi ba ci kanam xaw ma lan xaw lan xaw yow la wax ne di nga ko fekke ndey jaan mii ñuy waxtaane sage femme d'état la waaw euh, am na diplôme walla ah wala infirmière d'état mm-hmm. am na diplôme am moo ngi moo ngi doon exercer ca hôpital bi ñuy wax saint de dieu ñëpp xam nañ ko ci Thiès. Mm-hmm. ñu gis ko xam njariñam xam pas-pasam xam yërmandeem xam dogoom xam liggéeyam. Mm-hmm. musul fo Idrissa jóob la jànge ba dox ba am bagam mu ne ma man sama bëgg-bëgg yëpp mooy nekk ci wàllu médecine ndax man dama bëgg dimbali nit. Mm-hmm. jàppale nit dama am yërmande ci doomu aadama. te liggéey la ko xamante ni bariwul wax. waaye njariñ laa ëpp ma encouragé ko ca ba yàlla def sutura ay waajuram jàppale ko ah moo ñu fay ca xaalis bu bari ba formation bi jeex hmm? alhamdulilahi rabbil alamin ba yàlla def moo ngi doon yëngatu ca Saint-Jean-de-Dieu hmm. muy muy jigéen ju baax xale bu ndaw hmm. waaye teel jublu ci yàlla teel jublu ci yàlla teel a jublu ci yàlla te dina leen wax moom ay waxam moom ci boppam moom moo ko wax man ci boppam ren jii bi ma demee Sénégal ñëw na ne ma ren sëriñ ñëw nga fi at yu bari man gisuma la waaye ren mun il faut ñu gisante ñu toog ñu waxtaan lii du yoon mm. ndekete boobu day tàggoog man tey du ma leen waxee lim ma wax di ngeen xam ni dorom tàggoo ak man mm-hmm. yàlla séede na lool donc ndey dafa teel a muuru am na jigéen ñu bari dañuy dem ba benn âge wala ay mbir wala ñu gént wala xawma ñu so mais ndey ku yàlla teel a xiir ci muuru la te dafa ñëwoon ne ma sëriñ dama bëgg a muuru ma ne ko ndey baadu sama waxtaan yi dee yu metti yi may waxtaan la mu ma déedéet ma ne ko baadu dara mu ma déedéet ma laaj ko samay question yu ma may laaj xale yi mu ne ma lii sama pas-pas la kenn mënu ma ciy jëlee mu moom ma muuraay gi dama ko bëgg ñu suulaale ma ko ndeysaan waaw ca la tabarakallah commencé kenn musu koo xamee benn caaxaan amul benn fo amul benn doye bi amul solu ba correct yére yu yu yu yu yu yu yu yu yu yiw la daan sol waaw dem jàngi kenn du dégg waxam nday jaañ mën ngaa toog ak moom nii ak keneen muy wax ak yow wax yow li mu war a wax ak yow yëpp te kim toogal ci wet gi du dégg li li muy wax baat bu baat bu baat bu bu suufe baat bu jigéene baat bu sange la yoroon baat bu wàcc bari kersa day sàcc rek di la xool su seen ñeenti bët di daje rek nga gis mu daal di wàccee bët ndeysaan wax ndànk yaru am diine waaw su gisu euh, yenn xew-xew yi jeunesse yi amee mm. mu nga gis ko mu daal di sangu ba set sol yéreem yu correct jël kurusam dem ca rawdu maam alaaji mm-hmm. fa toog mm-hmm. def ay dogam mm-hmm. def ay ñaanam zikkar salaatu fatihiyam daal di ñëw waxtaan ak man ne ma ah man daal feetu naa sama feet maa ngi tëdd gis ngeen photo bi ñu publier 2012 le 31 décembre moromam yëpp dem meereek xaw ma fan ak fan ak fan ak moom mu ñëw fanaanee taxaw di màggal soxna Aminata Faye yaayu alxaaji muhammad njegéen radiallahu anhu mbir màngo fonk yaayam bëgg yaayam fonk ay waajuram fonk baayam fonk ay mbokkam waaye amoon yërmande lool lool lool ci yaayam suñu waxtaanaan rek mu ne ma ah sëriñ man lu bari xalaatuma ko sax ndax sama yaayam ca àll ba yaayam di jigéen ju mën góor ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla may ko xolu mm-hmm. soxna nday ami loo yal na yàlla may ko xolu muñ yal na yàlla may ko xolu muñ yal na yàlla woyofal yaramam yal ko yàlla dollee saafara barke alxuraan moo ko mbokkam yam nekk foofu yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp hmm. allah ci la ñuy jaar jaale askanu looween yëpp askanu looween yëpp góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi ñu dëkk ci HLM ñu dëkk ci kër maam alaaji ñu nekk Italie ñu nekk Espagne fépp fu waa ñoo ngi leen di jaale mm-hmm. ci turu Serigne Muniru ci turu lislaam yépp ndax ñoom ñii euh, Ndey Jaañ mii mm-hmm. maamam bi jur bi jur baayam bi mm-hmm. jur ndeyam alxaaji sawlo moo wàcce alxaaji Mouhamed Ndieguene ci bind alluwa ak jàngale alquran imam as nee na ma ñu bari ci waa askanu Ndieguene ci loxoom lañ wàccee alquranul karim kon kooku kilifa hmm. seen kër moo ngi ci buntu këru alaaj Mouhamed Ndieguene seen kër ak kër imam ñoo jàkkaarloo kon looween yëpp commencé ca sëñ Aziz hmm. tabaarakallaahu xaaj saw ñu gën koo xam ci Zembla dégg nga jigéen ña soxna awaloo soxna faatloo soxna xadi soxna aji ñoom ñëpp kenn ku par kenn ñoo ngi leen di jaale waaw tabarakallahu waa waddeen ñoo ngi leen di jaale haj mm-hmm. Souleymane ah euh, grand Jules sunu mbokk Abdoulahi Wadd euh, petit pas ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ndax euh, ndey fu baax la bokk mm-hmm. waaw waa kër maam Ngalandu Lo mm-hmm. ñëpp ñoo ngi leen di jaale waaw waa kër Baye Cheikh Lo ñoom ñëpp Pape Ma Cissé waaw ah, Tante Ya Mbay Cheikh Omar ñoom ñëpp billahi kenn ku ci nekk ñoo ngi lay présenté suñu njaal di la wax ne la ñoo ngi ànd ak yéen ci sunu suñu xol ci xew-xew bii waaw rawatina nag yaayam yàlla na ko yàlla may xolu muñ mm-hmm. yàlla na ko yàlla xol xëy ndax dafa amoon espoir bu rëy ci Ndeye Diagne mm-hmm. ñëw na benn at ba sama néeg mm-hmm. kontaan ñaanal ma dégg ne ma damaa dégg taxaw bi nga taxawu sama doom damaa dégg sama doom cofeel gi mu am ci yow lu ñu wax rek mu sëñ Mor sëñ Mor moo tax ma ñëw seet si la di la ñaanal yàlla yàlla fay la yiw ma ne ko lépp benn la ñun ñoo bokk ndey ñun ñoo bokk baay ñoo bokk lépp waaw kon nag yàlla na ko yàlla doole may muñ xolu muñ askan wi yëpp ñoo ngi leen di jaale ñoo ngi jaale tamit ay cousin am ku mel ni maam Cheikh ndeysaan Abdul Karim ñoo ma yee woote ba ba ba ci suba gi waaw lu xew rek ñu woote sëriñ nangam sëriñ nangam sëriñ nangam tabarakallah ñoom ñëpp ñi nekk waa Lyon yi mhm. soxna Fatlou ak njabootam tabaarakallaahu ñi nekk du bay dégg nga ñëpp daal waa Looween yëpp yëpp yëpp mu askanu ndey ak askanu baayam yëpp ñëpp ca Aiglon ñoo ngi leen di mhm. jaale mhm. ñoo ngi leen di jaale suñu xol yëpp ñu ànd ak yéen euh, donc euh, foofu laay dolliwaat tuuti jox Cerno Omar ci ndey ni mu meloon ci yiwam

waaw mu naan ma euh, waaw gis nga sëriñ man affaire ay defanteeg ay noonoog ay yooyu man taluma ko mm-hmm. taluma ko mm-hmm. ndax àdduna bi dafa tëradi mm-hmm. léegi dangay ngay rek dee billahi moo ma ko wax dem na ba wax ma ne ma ndeysaan ku amoon xorom la nag li nga gis noonu ku bari kerse la doo ko soo ko soo jaxasoo ak moom sax mënoo xam ni noon la xoromoo ndeysaan Euh, euh, mu ne ma mais nag sëriñ du tax nag ma ñàkk ful la de man du ma xuloo kenn nag bëgguma sax ku ma mere man nit du ma meree rek damay damay mel ku dof mhm. waaye nag du tax ma ñàkk fula ndax damaa xaw a gàtt mhm. ndeysaan saan mhm. mu ne su ma gàttee boole ca ñàkk fula nag fu ma jëm <laughs> ndeysaan ñu bokk xaqataay waxtaan ci ci néeg bi foofu waxtaan yu bëri mu wax ma billaahi wax ma ngëmam ci yàlla mu ne man yàlla mu ne sëriñ man yàlla dama ko gëm de man yàlla dama ko gëm ndax yàlla man damay xam ni toujours du ma bàyyi mu ne ma man am na am na lu ma séq ak sama borom waaw waaye xam naa ni du ma bàyyi parce que léeg-léeg day am yoo xamante ni mm. su ma koy ñaan rek rawatina nag mu ne su ma demee ca raw du maam alaaji mm-hmm. lu ma fa ñaan mu nangu loolu la ma wax mm-hmm. léegi sama na ko mu ñëw ma ne ko demal diisal ma sama soxla yi nangam ak nangam mm-hmm. mu ne ma man foofu lu ma fa ñaan mu nangu waaw maam alaaji sama xarit la fa dem man su nit ñi suñ jaaxlee mhm. ñoom dañuy dem feneen di jooy ak kii man du ma amee lu mën a naqari mhm. wala ma am sama aajo ca rawdu ba laay dem toog wér di léeg-léeg sax du ma wér damay toog nii rek mhm. kontaan di wax ak maam alaaji àggoon na foofu mu ne ma tamit sëriñ man yàlla moo ubbi sama xol def ci rasulullah mu ne ma mu ne ma cofeel gi ma am ci yonent bi mu ne ma def fees dell sama jëmm ji yëpp nday àgg na foofu ak man xam nga kii kon day tàggoo dem na mu ne ma nag Cheikhou Tidiane moo dee ci sama xol mhm. te mu ne ma duñ ma daggate woon tamit du tee sama cofeel ci cheikh boobu day gën a yokk Thierno mhm. lii foor na de mhm. waaw Maam Alaaji mooy sama sëriñ nag waaye nag Cheikhou Tidiane moo dee ci sama xol terme bii la ma wax de loolu terme wolof la moo dee ci sama xol waaye ba mu ca dee la ko dundal Ahmada Tijaani mm-hmm. mu ne rasulullahi nag cofeel gi ma am si moom mu ne ma def fees sama jëmm ji mu ne ma fu ma déggee turu yonent bi ba turu Cheikh Tidiane rek am na lu muy def sama xol bi yàlla rek ko xam waaw lii waxtaane nañ ko mm-hmm. am na yeneen yum ca dolli mm-hmm. waaye bi bi bi bi ci ci dëj bi ci la leer sama bopp ci laay soog comprendre loolu mu doon wax loolu nag du waxu mbooloo jigéen ju baax la wane na boppam nag dañuy bañ ca topp ko mm-hmm. waaye def na ay affaire am lijjanti na boppam te man xam naa ni man xam naa ni gëm naa ni loolu mu doon wax ci rasulullah doon ko wax moo Mawlana Cheikhu Tidiane doon ko wax ci alaaji mm-hmm. Mouhamed Ndiéguène mm-hmm. billaahi mook moom ñoo bokk suuf ndax nit ku nekk suuf san la bindee foofu ngay tëdd kon mook maam alaaji ñoo bokk suuf ndax mook maam alaaji ñoo bokk tëdd mook alaaji Axmat Baro ñoo bokk tëdd mook suro sorofa u yooyu ñoo bokk tëdd mo gaay yu bax yi ño bokku tëdd fofu kon ño bokku ben suuf mm-hmm. ba pour la jeri yal na yok sa leer mm-hmm. yal na yeureum la mm-hmm. yal na yàlla jéggal la yal na bal la yal na sutural la yal na nga contane ma ngi koy wax euh, mu melni dama waaw image bu daw yaram mu mu ngi naan ma ngi dem ma ko ndey demal rek ma ko foofu nga jëm foofoo dak ndax ñun ñi ñu sopp ñëpp ñoo nga foofu mm-hmm. te gis nga mm-hmm. ñoo ngi rey rek ñoo ngi toroxal rek mm-hmm. ñoo ngi fitnaal rek euh, naqar rek a fi nekk euh, euh, wor rek a fi nekk fen rambaaj jaxase ren bi lu ñaaw rek a fi nekk te foofu amul désordre te gaa yu baax yaa nga foofu soppe yaa nga foofu ñu sell ñaa nga foofu ñu set ñaa nga foofu ñadul jëw ñu def bàkkaar ñoo nga foofu mën ko demal dajeeg ñom ñu téru la teral la fu may daanele moy ñetti wax yi ma wax alaaj Cheikh Gueye léegi la ma woo di wax ne ma sëriñ bi sama xel dal na dafa am lu graw lo wax ci whatsapp bi ma ne leen mbir mi du affaireu baatin nday jañ yàlla bu ko ci top euh dama wax ne nday jañ sunu xel dal na ci mom lutax mané ma ne nday jaañ sangu na mhm. balañ koo sang di ko su jullee ndax ku fonkoon laab la billaahi mhm. danañ ñëw di ma question yu sew ci mhm. laab ku ragaloon sobe la ku ragaloon sobe la ku ragaloon affaire u euh, waaw kay sangu janaaba yi ak njàpp def ko bàyyi xel ay bagage su boppam sax la yor fa pour loolu kase ma ne ndey jaañ sangu na laataa ñu koy sang man leen ndey jaañ musta tardé wax kenn mus ko wax ko julli kon julli na laataa ñu ko mm-hmm. jullee mm-hmm. man leen day jaañ mm-hmm. jox na boppam yàlla laataa ñu koy jox yàlla parce que bi mu toogee moromam yépp di tu soli tubay di sol yu mini di sol yu yaraax di sol yu gàtt di taxawaalu ci dëkk bi def seeni décolleté fu nekk ñu fay dugg soirée bu nekk ñu taxaw fa far wu nekk ñu dem fa moom nday jaañ dafa ne man yàlla laa bëgg yonent bi Cheikhu Tidiane mamalaaji te mu nekk lu sincère ci moom mm-hmm. loolu préciser na naa ko mm-hmm. ma ne lu sincère la ci moom mm-hmm. yàlla na yàlla fay ko yiw yàlla bu ko ca topp yàlla na ko yàlla jéggal ah man de yàlla seede na ni euh, c'est une femme que je respecte c'est une femme que je respecte c'est une femme qui m'est très chère waaw c'est une femme que je respecte parce que man limay may respecté nit du alal milliardaire yaa ngi fii wër na hmm. déedéet du oto du cër du wax ju bëri du sol gesner déedéet sama maam alaaji Mouhamad Njigéen dañ daan wax nañu nañu bu leen ñee kenn lu dul ci ragal yàlla hmm. waaw mu ne nax bari na nit loo koy ñee soo hmm. xamul lam toogaale dootoo ko jox loxo mu ne bu leen ñee kenn lu dul ci ku leen gën a ragal yàlla ku leen dàq jaamu yàlla ku leen gën a bëgg yàlla ku leen bëgg gën a bëgg yonent ku leen gën a bëgg Cheikh Tidiane mu ne doo di ñee ñee leen kooku topp ci ginnaawam góorgóorlu ba fexe la mu am ngeen am ko fa mu jaar ngeen jaar fa waaye ndey mii de yàlla seedal ñee naa ko jigéen ju yiw la musul toog sama kanam defaraat kolam wala muy defaraat sërëm mm. am na ñoo xam te du waxtaan wi neexee rek nga gis kol ya dajjeeku Mm. wala sérieux daa jekku mm. pourquoi parce que na l'islam waxee ñu solo noonu solowuñu noonu mm. na l'islam waxee ñu muuroo noonu muuroowuñu noonu moom bi muy muuru dafa ñëw ba ci man wax ma ne ma wax ma ni ko ni ko yàlla bëggee ni ko yonent bëggee ma waxee ko noonu mu defee ko noonu xool leen photo mi ba ci bisu xewam yi nga xamante ni bari na ci ñoo xamante ni dañuy muuru nii de mais duñ leen waree mayee rek wala ñu war a am xew xew ngénte wala dara dañuy futteeku sol ci yu baax yi waaye gis ngeen xewam yi mariage am ngénteem yére yu jot ba ci loxo yi lay sol muuru takk piqué ba mu dëgër kenn du gis benn ciram kenn du gis la mu àndal yàlla na ko yàlla yërëm jigéen ju baax a soo gisee ma insister ci wax ci dama ne am na loo xamante ni moom def na ko muy ay ka ay kéemtaan mm-hmm. mais kéemtaan yooyu su ma ko waxee ci rajo bi wax ko ci télé bi wax ko ci Facebook bi mm-hmm. kenn mënu koo roy ci moom Mm. waaye jikkoom yii wallahi jigéen ju baax mm. jigéen ju bëgg baax war ngaa mën a ci ndey jaay mi ku baax la woon ku bari njariñ la woon mm. daraan def alalam ci bisu Seydina Muhammad amul dara élève la woon étudiante la woon amul dara mais lim daan cotiser ñi fayee ko salaire daanuñu ko cotiser maa la ko wax ku ku ku jigéen ju baax a daraan toog ci àgg Euh, ngoon nii. Mhm. mu ñëw. Mhm. am na ay fataaye ñi nekk Thiès xam nañ li may wax boori meer yi sooy dem meer yi. Mhm. am na kuy jaay foofu ay li ay fruits benn pël Fuuta ci wetam am na kuy jaay ay fataaye yu dijj. xaw ma la jar xaw ma fataaye day am nen mais fataaye bi daal doo ko lekkee daanaka ba suba ci dootoo sox dootoo soxla fii. danaan danaan dem danaan toog ba caabi ñëw tu seet si ma. toog noonu ci saal bi xaar xaar xaar nit ñi dugg ko génn rek su kii mu ne ma sëriñ baax na te leen man fii laa dëkk. jël leen rek nit ñi dugg ko génn nit ñi dugg ko génn ba benn waxtu wi saan ngoon gi mujj gi nu muy def su ngoon jotee day doxantu ba foofu jënd ci fataay yooyu tàkku saan mu ñëw ne ma dama laa soxla c'est très urgent noonu jigéen bi bari feem la waaw dama laa soxla sëriñ c'est très urgent ma ne ah kon na ñëpp toog xaar nday soxna nday mii moom du ne c'est très urgent rek c'est très urgent mu dugg ci biir su duggee daal di génne mbuus na ma am lekkal ma ne ko ah mu ne ma lekkal xam naa ne doo lekk xoolal loolu ci xale bu ndaw moom moo ngi xool sama yaram di xool ni léeg-léeg dinaa toog baar ba vingt deux heures ma matin di recevoir mu ne ma kii lekk ko te kii sëriñ doo ko lekkee dootoo soxla sax lekk fii ba heure bu la neex daan na ko defal soxna pintam yi billaahi teraanga bu nekk daraan ñëw rek rocceeku ndànk nekk ah sëñ bi wala mu togg togg bu yamam mm-hmm. daal di rocceeku ñëw ah sëñ bi kii de nangam ma ne ko yow moom sañam moom dama koy lekk mm-hmm. parce que xam naa ni sa sa douceur bi nga am mm-hmm. mooy sedd gi nga sedd dal gi nga dal dafay dugg ci biir lekk gi waaw jigéen ju baax la jigéen ju baax la euh, waaw mu ngoog daal bëgguma sax euh, euh, waxee nee na nii wala mu dugg fenn fi parce xel yi dafa sori ak xol yi yëf yi dafa bette yëf yi dafa metti te xam nga du moom rek a gaañu wax naa leen ko sànq doomam ji amul deux ans dafa gaañuwaale ak moom ay goroom ay magi jëkkëram ay doomi magi jëkkëram juróom benn lañu ñun ñëpp a dee ñun ñëpp a dee ndeysaan ah xam nga lii metti na lii metti na li metti na waaye nag euh, yaakaar am na mm-hmm. yàlla bu yàlla tas yaakaar yi mm-hmm. yàlla bu yàlla tas yaakaar yi mm-hmm. yàlla nañu yàlla boole jéggal ñun ñëpp boole ñu suturaal jox ñu suñuy càkkutéef euh, tabaarakallaahu Cerno Omar ah maa ngi ñaan ñëpp nañ bokk ñaan parce que euh, dee day du dara mooy tuxu rek la waaye nag deewu xale Cerno dafa metti waaw deewu xale Cerno lu metti la waaw surtout nag xale boo xamante ni alhamdulilah set nga mm-hmm. Mm-hmm. yiw nga correct nga mm-hmm. ah, am sa avenir foo caaxaanoo am sa bac bi nga ko waree am am sa BFM Idrissa Diop ñëpp ko xam copine mi ko ñi bokkaloon classe ñëpp ku wax rek daal ne correct posé simple wax ndànk du werante du xuloo oh ndaw saa ngook gaynde gaa ngook yàlla na yàlla yërëm ko mm-hmm. ah mm-hmm. yàlla na ko yàlla jéggal mm-hmm. yàlla na ko yàlla baal yàlla ko yàlla suturaal te vraiment ñoo ngi xalaataat jëkkëram bu baax a baax a baax ndax tamit daan na ma wax yu baax ci jëkkëram ci fonk gum ko fonk respect bu ko jox teraanga bu koy defal waaw goroom tamit xam nga li li metti na sa ñaari goro yëpp deewandoo ci benn jotaay seeni doom tamit deewandoo ci benn jotaay metti na metti na waaw goroom ñoo ngi koy jaale famille jëkkëru Ndeye Diagne. Mm. fàllu ñoo ngi lay jaale yàgg say say mbokk yàgg say frère ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaale waa HLM Thiali yëpp ñoo ngi leen di jaale mm. askan wi yëpp ñoo ngi di jaale. Mm. lu metti la waaw waaye nag muñ rek ñun ñëpp nañ muñ te góorgóorlu xam ni ah alaaj Mouhamed Ndiéguène de dañ daan wax nañu ku matal dem. Mm-hmm. mu ne ku matal dem te mu ne ku dund lu bari dese tuuti te comme ñun xamuñu ñaata lañu am. ndax bari na wala tuuti na nañ góorgóorlu nekk ci li yàlla bëgg hmm. góorgóorlu leen ñoom Abdul Karim ak maam Cheikh ñooy bokk di julli fajar ku nekk man leen góorgóorlu leen de gis ngeen de ndaye ngi nii seen hmm. morom la de hmm. moo leen mag tuuti waaye yéen a bokk benn génération jaamu leen yàlla dee amul mag dee amul ndaw dee amul góor dee amul jigéen dee amul ku gëm dee amul ku weddi dee amul ku baax dee amul ku bon sëñ Ousmane Gueye Fanaaw maama daan wax na ko de mu ne ah sëñ Mor waxoon nañu nañu dee mënatul nekk gàcce keroog bi yonent bi faatoo mm-hmm. <laughs> dee dee mënatul nekk gàcce mm-hmm. alaaj Muhammad Njigéen daan nañu wax ne law kaanati dunya taduumu mm-hmm. li wa li waaxidin la kaana rasulullahi xayyan muxallada xayyan wa baaqiya maama laa ji nee àdduna du fi kenn doon sax ngir njariñ ngir baax ngir kaar ngir lu mënti doon mu ne rasulullahi rek a fi des te rasulullahi dem na يلا مهلكوا فين مات أو أه؟ أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله شاكرين يونت في الدمنا يلا ننكو إنك ميت فإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم تختصمون ها أه؟ دونك يوم القيامة عند ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون دونك يونت في الدمنا يونت في الدمنا يونت في الدمنا wax في ko fi نيار موي موي naqar yi gën a metti ci kaw suuf mm-hmm. mooy dema ko yonent bi mm-hmm. ak dagguk wax yu ci asamaan asamaan mm-hmm. waxatuñu waxatul ak ñun ay téere rek la ñuy waxal fi mu loolu mooy naqar yi gën a metti ci kaw suuf yonent bi dem na saxaaba yi dem nañ sayyidatuna Fatima six mois après yonent bi la dem ah Cheikh na Ahmed Tijaani dem na nit yàlla yu baax yi ñuy tudd ñëpp ñëpp ñëpp dem nañu ah kon dem farata la la sax dem yal nañu fekk ci lu baax moo tax adduna bi mbokk yi nañu def ndànk nañ dal nañ dal nañu bàyyi werante yi bàyyi xuloo yi bàyyi defante yi bàyyi sànnante taraak yi bàyyi liggéeyante yi bàyyi tag tibbalante tànk yi bàyyi xastante yi bàyyi wàccante yi te sédd lii sédd lii yow mi nekk sa bureau yow mi am sa salaire yow mi am sa xaalis yow mi am sa oto séddal bàmmeel toujours ma Les ko xel accident la accident day am France day Amérique day am les am te nous neex lay xamoo fu lay fekk mhm. da ngay qui, la fa la mhm. waxuma la ak faire ak xawma lan ak lan ak lan mhm. nañu def mbok yi def def qui, yef yi ci ba su dee dikkee nga dem sa yoon njaboot gi toujours dama leen wax pare leen pare leen il faut ngeen pare il faut ngeen pare pare bi mooy heure bu dee dikkee nga dem dee li ci des ñu bàyyi ci la yërmande yàlla ak loxoom waaye fi ne nii toog li ñu li li ñu jëlee àdduna mhm. muy am po muy am caaxaan muy euh, muy muy muy muy muy muy werante mhm. muy ay série mhm. muy ay ay ay lu kenn mës ta gis muy weerante muy audio muy whatsapp muy Facebook lu bon rek lu bon lu bon tey jii euh, euh, vidéo diine doko dougalé do am 400 vues Ben scandale wala ben tiaxan doko doko doo mhm. ci saasi mu am 14000 vues mhm. nga xamante nit ñi lu bon lañ bëgg ah il faut que ñu delluwaat ginnaaw bàyyiwaat xel bu baax suñu diggante ak suñu borom ndax li dal Ndeye Diagne wallahi ma maa ngi di wax waye sama wax ji du àggee yalla wallahi sa waxuma la sa wax ji yi gi may noyyi inspiration yi expiration yi billahi bu ci dem dikk yàlla la su ko neexee mu arrêté ko léegi te du rend compte kenn xam nga ni góor googu ñu wane mu dee ca jàkka ja ca Maroc moo gën a dal xel nga dee ca baar wala nga dee ci soirée waxuma ni ko dee ci soirée day dem safara da safara yàllaa ko moom waaye nag am na loo xamante ni moo gën a dal xel ci daara yàlla nañu yàlla boole dimbali kon jeunesse bi jugaat leen demaat leen ca jàkka ya jaamu leen yàlla sellal leen respecté leen waajur yi Mm. fonk leen leen jox leen leen seen cër mm. màggal leen ah mm. bu leen jubo leen ak ñi ngeen xulool àdduna amul solo nday jaañ loolu lañu loolu message boobu la ñu jox de moom dem na ci accident la dee aljana la jëm directement bëgg na yàlla bëgg na yonent bi bëgg na Cheikh Tidiane bëgg na Cheikh Omar bëgg na maam alaaji te mu wér ci moom mosul mm-hmm. caaxaane dara luy lu ko yàlla digal mm-hmm. lu ko son borom tere tamit da ci daan góorgóorlu di ko wattu mm-hmm. dem na accident la dee yàlla yërëm na ko message bi ñun noo ko moom ñun ñoo ko moom ñun ñii di dund ñun ñi fi desandi nañu góorgóorlu jigéen ñi muur leen seen cëri jigéen ñi muur leen seen cëri jigéen ñi muur leen seen cëri façon muuru bu bees bi tamit wattu leen ko muuru gën a yiwadi ñi ñi ñi ñi muuruwul musiba la léegi rek Sénégal mm-hmm. léegi ngay gis mm-hmm. ay soirée mm-hmm. ak ay gala nga ci gis ay jigéen ñu muuru musiba la daggat yi tuba yu seere yi yu yaraax yi yu gàtt yi yu woyof yi façon yu bees yi wattu leen ko day jaañ dem na takkaat leen seen bopp takkaat seen ndigg téyewaat seen bopp góorgóorlu ci yàlla man daal loolu laa ci xam li ci des yëpp nag ñun ñëpp ñu bokk wéet xalaat jooy suñuy bàkkaar mm-hmm. jéggulu yàlla yàlla baal mi su ko mm-hmm. defee ma jox Thierno Omar su paree ñu mën a may mbokk yi nga xamante ni ñoo ngi ci mm-hmm. ligne bi ngir ñoom it ñu mën a dugg sànni seen i kàddu jaalante ak mbokk yi incha allahu taala euh, yàlla nañu yàlla boole di jéggal boole ñu suturaal bi jaahi seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam euh, bi xormati cheikh tijani barke cheikh omarul fouti radiallahu anhu barke mamalaaji yàlla na leen yàlla na leen ñoom ñëpp ngaa yooyu def seen rang tedd boobu ndeysaan yonente bi naan cheikh demal seeti ah Cheikh Omar ana hmm. ana wool maam alaaji nañ hmm. xale bu jigéen bi hmm. xale bu yiw bii moom doomam ah, ak ñi mu àndal faatu waaye nañ ñëw nañ ñëw ñu teral leen ba ñu wax yaa layta qawmi yaalamuuna bi ma xafara li rabbi wa jaalani min al mukramin yàlla na ko yàlla defal soxna day boo Thierno Omar bisimilah tafadal mbokk yi soog a mën a dugg ci wér incha allah jërëjëf jërëjëf macha allah macha allah sant yàlla eh, eh, ci jigéen boobu defal ko lu gën moom yal na ko yàlla defal li ñu ko ñaanal ni yal ko yàlla defal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daw na yaram ci waajal boppam ñu ko waxee moom waajal na boppam amoon lii moom bett ko bu jubloo ci bett ba ma màgg wala am lii wala ba def lii te ñi ngay waajal yëpp dee du xaar in sa din ne kun ga so santa ko na din bakaranta kun ko fama kan to ni ni gina yin di khali ne tare yo bale dom ju rek am na xamante yàlla rek ko def keneen keneen sañu ko rek donc keneen moom day fekk gars yi yëpp ngir yi yàgg ndax su muy boo xoolee rek da nga naan fekkoonte ne la da naan kii xanaa amul xol yërmande wala ay ku am yërmande yàlla la sedd ci yërmande donc ku mu yóbbu rek loolu ci moom mën mm-hmm. na ko yóbbu tamit ko bàyyi tamit ba si kanam mu indi ko yeneen problème fekk wàññi ngëmam wala wàññi dara ci ci diine mais li moom sant yàlla la day préparé wu xale day xale day préparé wu te saas la nag préparé xale préparé wu saas la ak yàlla jàppale la parce que ñoom ñi si yàlla jàppale xam nañ ne lii du seen mën-mën lii ñuy def yëpp ñoom mënoon nañ ko def waaye ndimbal yàlla la ndax eh, boo xoolee ni ñu ko waxee xale bu préparé teel préparé boppam dañu ñu benn mag euh, dafa mos a fekk benn xale chaque jour mu ci jàkka rek di di julli rek moom bu ñëw jàkk la fekk xale bi xale bi yow loo def yow ngay xale bu daw dama dama uti leneen mu gën ngay julli rek xale li jàkk ji bàyyi ko man mu ne ko mu ne ko papa man daa am lu mu seetlu moo tax mu ne ma bàyyi jàkk mu ne ko loo seetlu mu ne dama seetlu daal sama yaay guy guy taal ay matt guy boyal ay mat yu ndaw laay gis mu mu jiital ba pare doog andi mag yi mu ne ah ndekete xale yi ñoo jiitu mag yi ci laa jàngee ne wala xikma boobu rek mu ne ci laa jëlee ne ndekete eh, ëllëg boobu moytu xale yi la ñu njëkkee mag ñi mu nag moo tax ma teel a jublu ci ci yëf yi donc comme ni nga ko waxee moom sant yàlla te nit ñi tamit eh, gën a xoolaat ñu ñuy roy la fekk ci ñu baax rek ñu baax am nañu. يوم رابية كلادي يوم سيدتنا عائشة أكسيم المداخين يوم آدم عيسى يجر يوم سيدنا يوم أحمد ضمر يوم سيزمالي سيني سيني ويجري يوم يوم روي واي كوري لنا انتمت دوني جسم ويوم روي جسم ويوم روي كيلو با نحن يوم تبدين كوري يوم رجال كوري يوم تمت أمنين يوم mbir yàlla mooy li ñuy wax rek mbir yàlla moom fi mu koy sànni fu set rek lay doon di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla def foofu di di gën ci moom di bakk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ko seede yëpp mooy euh, préparé wu ne loolu dafa ci am solo préparé wu bett dañ ne dee day bett mais dee du bett dee dee mës a bett ndax euh, du loo xamante ne dañ ne la euh, jour jour jour jour bii lay ñëw kon nga xam ne ko dañ ne la dalay bett kay yow pare rek yow booy xeex ak nit ñu ne la diw mi kat heure bu nekk mën boo ko defee rek du la du gàcce comme ni nga waxee ni ko suñu sang bi tedd bi waxee maama laaj donc ku yóbbu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du bàyyi du bàyyi keneen du bàyyi du bàyyi keneen ku nekk rek na ñëpp ñu dellu xoolaat suñu bopp xoolaat suñu doxalin préparewaat xam ne am na lu nekk suñu kanam. te man li ma si gën a yëm nit nit nan lay xëyee suba ba ngoon di dee lu lu yéemu la nga xamante ne heure nekk mën na ñëw donc buy dal sa rek day am lu mu lay fàttali yu bëri dina tax si delluwaat sa bu baax am na leneen lu dul àdduna lu mu yàgg yàgg dañ ci jóge donc yàlla suturaal sàmmuñu moom moom ñu am ak ay goram ak doomam ñëpp yàlla la yonent bi wa sallam teeru ak gaay yu baax ñun ñi ci desoon tamit yàlla sàmmul aar ñu aar ñu si yoonu yoon bu baax ba lislaam ci ñun euh, wàll ba ñu tekk leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla ñu may ñu mujj yu rafet mujj yu baax comme ñu waxee suñu mbokkum jigéen ñi ñu euh, rafet la lu dal la ci xale bu jigéen ci jamono loolu yombul yombul yombul yal na yàlla def sutura sutural ñu ñoom ñu dem tamit yàlla yërëm leen jéggal leen euh, mbokk yi nekk Mali ak ñuy gaañu fële ñëpp yàlla boole leen ci xadara yonent bi salaam salaam ndax ñëpp xëy nañ ci xadara yonent bi am nañ ñëpp yàlla boole ñu ci barke yonent bi salaam salaam ba jox la kàddu bi jërëjëf Thierno Omar ñoo ngi ziara bu baax di kontaan Euh, loolu nga wax rek mooy li mooy dëgg mooy li am solo mm. Mm. Euh, nañ ko bàyyi xel mm. yëf day ñëw ah, muy góor muy jigéen muy mag mu ndaw nañu nañu waaj sama maam dañ daan wax ne euh, yëf yi mu ne gëlleemuk sëf la mu ne ñeme fanaan biti ragal fanaan biti waaw yëf yi loolu la dañu bàyyi xel rek ne ñun suñu wàll day ñëw toogu taar dañuy daanu waaw kon nag nañu góorgóorlu préparé ko bu baax. Mm-hmm. sëñ Mounir day wax toujours ne ku xamoon looy mujjee. Mm-hmm. njëkkee ko. Mm-hmm. te ñun ñi Sénégal ak fépp a ci am. fooy mujjee jàkka ja. di jéem a julleeg yaa jaamu yàlla ci moo tax jamono bii ci ngay jublu ci borom bi tabaraka wa taala di bàyyi xel cerno nee na. nit nan la mën a toogee suba ba ngoon. te du fàttali ko dee. Hmm? loolu mënul nekk. am na bis benn mbokk mu baax fii. Euh, wax na ma ko mu ne ma dama bëggoon nga wax ma lu may def ba duma fàtte dee hmm. mooy wax jooju nga wax hmm. ma ne ko nit de lu nekk war na ko lijjanti hmm. su ko amul ma ne ko loolu war nga ko lijjanti peut-être ñun bokkuñu ñun ci dëj yeeg si karu néew ak sangu néew yooyu ci lañ yaru mën nañu bañ a fàtte dee waaye yéen man ngeen ko sàkku ma ne ko loolu lu yomb la mu ne ma ah ma ne ko loolu lu yomba yomba yomb la xaaj mm-hmm. njoobu mm-hmm. ma ne ko lu yomb la ma ne ko xanaa xamoo ni foo toll rek sama borom moo ngi lay jox ay misaal yow ci sa bopp mm-hmm. di la jox ay misaal ci même objet yi nga yor mu ne ma ci nan ma ne ko heure booy sangu sangu bu néew la rek na la fàttaliku sangub néew bii da da koy defal sa bopp rek bee ñu la koy defal mu ma ah ma ne ko loolu kese la ma ne ko heure booy dugg ci sa lal di tëdd. Hmm. jàppal ne yaa ngi dugg sa biir bàmmeel. Hmm. ma ko man man loolu ma tax du ma sàngu du ma muur sa mbokk du may sàngu ndax ba dama damay jàpp ne maa ngi ci bàmmeel rek. Hmm. lu mu tàng tàng lu mu sedd sedd mënoo fexe ba mu muur sa mbokk. ma ne ko ma ne ko mbokk mi ma ne ko heure boo toogee ba watu. watu sa kawar dañ. kawar googu dañ dee la. parce que kawar googu jeex na dootul saxati mm-hmm. te gis nga sax bu dee ñun la dañuy gas mm-hmm. suul ko mm-hmm. mooy wane ni dee na loolu war na laa fàttali dee soo amee yére di ko sol di ko sol ba mu ràpp nga jël ko def ko ci njaganaay ba njaganaay la ràpp nga jël njaganaay la dem sànni ci sën ba kooku moo lay fàttali dee war a sunu maam su ndakku maam bu ñuy wax sëñ Ousmane Ndiéguène daan na wax ne yére lu mu rafet rafet su rombee sën war na ko nuyu ndax fa lay mujjee fekk <laughs> mané ko mbokk mi muné ma mané ko sa téléphone heure boko yoré muné la batterie faible xamal ni loolu moy dundu guy waaj jeex ta batterie faible heure bu la ko téléphone waxé do deugéré bop rek mo fay bopam rawati na nak iPhone du fayé talat ba day jafe lool mané ko moy dé deug deug deug dé mané ko heure bu sa téléphone ne kamaj nak fay yàlla bu mu fekk nak ñu war la jox ay chiffre pour xaalis wala ñu war la wax lu am solo wala nga wax ak soxna ci ma ne ko gis nga coupé boo bu muy coupé bett bu mu lay bett. Mm-hmm. war na laa fàttali dee. Mm-hmm. ma ne ko say we doo ko daggee we yi dee nañu. Mm-hmm. dagg nga ko. war na laa fàttali dee. soo tuflee. génn na ci yow. soo ko dugalaat. war na laa fàttali dee kooku dee la. soo tuuree ndox c'est la même chose. noonu laa ko toppee du ko topp ma ne ko lii doo ko bàyyee xel. mais mënoo fàtte dee. parce que dee ñi ñu wër. innal mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum nee na dee bi ngeen di bi ngeen di daw bi ngeen di daw de bi ngeen di daw nee na fa nga jëm moo nga fa kon kañ dee moo la wër dee moo ñu wër kon mbokk yi nañu góorgóorluwaat di def di bàyyi xel yàlla bu baax ci suñu xarakaat ak suñu sakana waaw suñu yëngatu ak suñu dal yëpp ñu ci bàyyi xel borom bi tabaraka wa taala ngir loolu mooy nekk suñu mujj mooy suñu nekk suñu mucc mooy nekk suñu defaru àdduna ak àllaaxira yàlla nañ ci yàlla xiir su ko defee nit yàlla yi toujours maa ngi koy wax man leen soo dégg soo gisee tarixa bi ñu naan la waxal laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah mais dañoo bëgg rek nga fàttaliku laa ilaha illallah ngir soo waree dee mhm. fàttaliku laa ilaaha illa la mhm. soo dee fàttaliku yàlla laa ilaaha illa la mhm. soo demee ci biir bàmmeel fàttaliku laa ilaaha illa la soo dekkee fàttaliku laa ilaaha illa la soo waree dugg àjjana ñu laaj la laa ilaaha laa ilaaha illa loolu moo tax bis bu nekk ñu lay wax loolu laa ilaaha illa jeex na ah soxna soxna Awa allo allo waaw soxna Awa yaa ngi yaa ngi en direct ñëpp a ngi lay déglu